Oh, my dear, bring the smile. What's it making I don't know if all in your or to make it. Make it a cool of Make it and is a you in Make it Baba ma si suñu yaay nijaay yi namu naa la. ba bàyyi ba mu ne mbay def dem baax baax trop. aw ma lu dul sa baay sa baay amul woon lu dul man suñu wér. bu jël di dama jiitu dama ko mën a taw ba jigéen ma di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér. yàlla. moo defoon jóge jël yàlla. moo jur Ndiouga kanam koy fekk waaye Ndiouga artiste yi ñëpp bu ñëpp a xam yàlla may na ko ci njugal fonk nay waajuram ba dee moom la ko yàlla may àjjanay fi si barka nabi Mustafa yéen na dama leen bàyyi ak yàlla ak yonent ba sëgal ko bi yal na leen yàlla sàmmal boppam lépp lu juga jëm ci àddina yàlla si àtte boppam ci barka nabi Allahumma amin man kontaan naa ci yéen bég naa ci yéen di la jàngal tam fu ma toll sa papa mosul a def lenn sa waxtaanu ndax man yal na la yàlla saxal yal na la yàlla sutural yal na la yàlla laxal fa yàq yëpp kon ah Sénégal tey damaa ñëw seeti suma suma bàjjen mën naa ne moo nekkoon xaritam xaritam benn bakkan bi nekk nii muy ah suma bàjjen nga xam ne sa mbàmba xarit baa meroon te wéy bi ma nuyoo la ko sa mbàmba te nag du def dara te ko ñaanal dem ah xam naa ne tamit bàjj nañ bàyyi ah, nag ma ñëw indi la si waaw nga def kii